barhaamu baaun waraaun alifun thumma haa mi mun mujjal faydu jox ñu ñuy naan. ba juróom ñaari cërëm yi benn bu ci nekk mu am wilaayatu doomu aadama juróom-ñaari cëram yi benn bu ci nekk dafa war a fexe bam mu am wilaayatu moo tax jaamu yàlla boo xemee ci sëgg ak siggi ak sujjóot ak rukkoo ah yow mooy léey li gaañ gaañ nga xam ne ëllëg dañ leen di denc ca kaso googu ñuy wax waylun lil musallina waylun lil musallina lasina hum an salaatihim saahoona li lay jokkale ca ba boo weeranteeg moom rek jóge koo nga ba mooy an salaatihim saahoona salaatu laa bi rukkee wa sujoodi bal salaatu ittisaalu اتصال جسمك إلى سات الحالية إذا صح إذا صح المصلي قصدا بقلبه إلى الله تبارك وتعالى ثم صح روحه عن اتصال إلى حضرة القدس كما بدا أول مرة فقد دل في الحقيقة المحمدية ودخل في هذا الوادي الوادي القي الوادي السلم هذا هؤلاء مساكنهم الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنحون الماهون ñooñu fan lañ leen di denc moo gaañi ñoo bokk rek liñ leen di wax jullit bi nga xabut ak ki ko du julli ñoo bokk fi ñuy taxanee ngangarang la bu jënte bee soo bu ñeenoo seen mattamara ñu ngi koy daanee jëfale ca woy lun rek nee na loxo bi lii tax mu nekk waliyu mooy nga bañ cee lor bët bi li tax mu nekk waliyu nga bañ cee xool luñ lay tere nopp bi li tax mu nekk waliyu mooy nga bañ a déglu waxi caaxaan tànk bi li tax muy mën a taxañ suuf si mooy nga bañ a dox dem ci caaxaan pëy mi li tax mu mën a jut ko xem ni xutbu mooy nga bañ a caaxaan ci sa dund juróom-ñaari na la abi muharas di jàngale ca risaala ne ahanana laahu ala rihayati wadda ehe allasi awdaana laahu bihi mooy tànk loxo nopp sikkin ba kañ ba gémmiñ loolu rek la juróom-ñett juróom-ñaar ah, juróom-ñaari waay yooyu rek la waaw olof daf ko woy waaw tànk loxo nopp sikkin ba kañ ba gémmiñ rek mu jeex tàkk juróom-ñaar yii nag bu rawee rek nit ki raw na waaye juróom-ñaar ñi fekk rawul rek nit ki rawut fekk salut nit ki salut juróom-ñaar ñoo nag ki nga xam ne moo leen commandé mooy malikun xaasa te fii setut illa man ata allahu bi qalbin salimin xol boo xam ne bii nii mucc na ci boole ci yàlla ak ma yàlli kenn rek ci mucc nag mooy ko xam sëriñ mu la la ba ne la yaa ngi nii yàllaa ngi nii koo ci mucc kurut kooku rek yaa ngee bokkaale yonent wax na ko ci hadis nee na bokkaale ci xolu jaamu wi jaami yàlla yi moo gën a nëbbu sànqaleñ wuñ xonq wi muy dox ci doj wu xonq ci jamonoy lëndëm ni mooy ñàkkee yëngatu ak tegin ak ni mooy ñàkkaa feeñee ni mooy ñàkkee takk ak ni nga xamee na la ñàkkaa xam couleur boo xam ne mën nañ koy xam bokkaale noonu la gën a lëndëmee feek tasawulaa xut bu jamono mu jël laa ilaha illaa laahu lawalu laqi zahiru baati zahiru baati yóbbu na ci biir gaañi rek commencé dara dafal farqoo ak jamono rek lawalu laaqiru saahiru saahiru lawalu laaqiru saahirul baatin lawalu laaqiru saahirul baatin nga boolente farqoog jamxoo rek farqoog jamxoo rek fekk farqoog rek balaa nga àggee ci maqama tamkin boo xasee ba àgg na ci maqama tamsin tamkin nag fu mu nekk nii nii dootuloo boolente farqoog jamxoo jamxoo rek ngay def waaye dootuloo def farqu moo tax euh, wirdkat yi bu ñu bëgg àgg ci yàlla nga xam ne jamxoo rek li ñaay xoolee buñ dikkee dañuy def xujj rek te duñ xëf ku mën a da parce que ñoom fu nekk ñu ngi ci jamxoo dootuñ def farqu xëf xëf farko la te ñoom jam rek la def jam xo rek ñu xulli ba dee rek di la xool bu ko defee boo waxee bu déggee sa wax ji tiit xerawlu noppi bi ba xam bu fekkee ne dégg naa wax ji ca xaamewut ko mu ne arini ansur ilayk kon kooku jot na maqaamam yonti yàlla Iisaa dégg nga nu may reexee jot na maqaamam yonti yàlla Moussa fa dem yàlla ni kurkure yëngatu ci doj rek mu ne ko ari nii ansur ilayka waaye <laughs> la bëgg gis won ma sa bopp ci biir doj wi yàlla toog mu ci biir doj wi <laughs> oh. mu toog bam yàgg mu ne ko unsur ila jabale fa in istaqara makaanahu fa sawfa taraani ba mu toogee di xool lu yàgg yàgg ba am maqaamaab jam hoo nag li yàlla ne bëxën ñi ci kaw doj wi ne ko maa ngi nii dara nekkul fi doj nekkul fi xamal ne ana nii ana laahu laa ilaha illa ana demet demet xol bi moom la borom daale di wax doom doomu aadama malikun yëroo yuwaasirul hija wa yamudu min jundin bi anwaaril xuyóobi mu jënadi doomu aadama ci boppam moom kenn aduna bi yëpp la ndax lépp lu nekk ci adduna bi mu ngi ci yow déedéet sax ëpp nga rek adduna waaye tey doomu aadama lépp lu am rek lu yàlla di bind mu feeñ wala lu tëjale yaatu bu mu wax sax bind ndax gon bu mel ni dafa am lu ñuy bind ak ku bind ah bépp tëjale yaatu xam ne feeñ na wala tëjale yaatu bu nëbbu yëpp mu ngi ci doomu aadama lépp mun ngi ci doomu aadama lépp mu ngi ci doomu aadama ak waaw moom doomi kan la doom aadama moom doomi kan la aadama moom doomi kan la foofu foofu la borom xam-xam yi am ah aadama ku ko bind mooy nagu ndàbbat bi nga xam ne moom la gunee tabax bu ñuy doora kon gune gi ko tabax bu ko neexee mu toj ko kon kan moo tabax yàlla kan moo tabax aadama yàlla ko tabax yàlla moo ko tabax ana yàlla moomu nag gëm ne yàlla moo tabax aadama ana yàlla mi tabax aadama nag te du ñun ñu bokk nañ ko gëm ana yàlla mi tabax aadama nag ana moom ay bu mu leen laajee yàlla yéen euh, ngeen yàllaaral nii di ma xool ah. fu yàlla nekk kay nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi alquran nañu ko wax man maa leen gën a jege buum gi yaam seen xol bi koo xam ne kii lu ma wax dëgg dëgg la kooku lu mu wax dëgg yàlla moo la gën jege buum nga yaam sa xol bi dof nga yaa moo tax gaa ñi di la toppaan maa di yàlla te dara du leen dal maa di yàlla de maa di yàlla de maa di yàlla de dama am sama rakk joo xam ne jii nii fa tër bi yowoon ne àgg na ci yàlla muy sa rak mahamadul mahamadul kabir mu daal di kere bindal ma man yaqul inni ilahun min duni kasalika najisi jahannama wa kasalika najisi zalimin manako ne anta min salimin aw mi man yadxulul janna eh, jahannam mu ne kañab dama xoy ba da nga dugg safara de <laughs> yow mi de da nga dugg safara ma ne ko nañ dem ci grammaire du yàlla dafa wax ne ku wax ne yow yàlla te duuxaloo yàlla ma lakk la waaw ma ne ko nag bi nga waxee ne yaa yàlla te duuxaloo yàlla boo la la sag di yàlla di lakk waaye boo waxee yàlla te damaa yàlla nag yàlla du la lakkate ndax du yàlla du lakk boppam mu teg loxom bi ci gémmiñam gi ndeysaan ba ma tër bii ni ma ko sonnale pikin la nekkoon pikin la nekkoon bu jëm see ci man di ma fekk si Patte d'Oie ñemewut a dugg oto dafay doxee pikin ba xëg si muy sama rakk Mamadou Kabir mii maa koy wax bis boo jëm see ci man dugg oto da nga xam ne oto bi yàlla la te kon oto bi fay daanu nga rey sa bopp reyaale ñëpp fanaan jógee ko Pikine di doxa tànk ba xëg si fekk ma paadawaa tërbiyee bu métti laa ko tërbiyee bi ma demee ba nga xam ne nag bu demee ci Maara Fall soog di xam yàlla nag ma soog di koy wal mu dem ci Maara Fall moo tax ba mu demee Maara Fall ba ko topp toppatoo ba pare fa yëkkati ijaasal itlaaqul itlaax jox ko fekk man maa ko njëkk a tërbiya ci aaya boobu mu laajoon ma rek ci laa ko teg sarta bu métti bii nii di ko doxloo diggante pidi pikin ba Padoa te loolu def na ko ay yooni yooni yooni yooni yoon mbir mi amul négociation amul mbokko yàlla amul mbokko yàlla amul mbokko bu fekkoon mbokk la sama doomi ndey la bu fekkoon mbokk sama doom mi baay la yaayam sama mbokkam yaay la baayam mooy summi mbubb jox ko sama baay te terewut dama ko sonnal ba muy bëgg a dee pour mu xam yàlla lakin de sirruhum bi jiddin xat yu naal laa bi naa aw bi mu daataat rijal tërbiyakat yeeg ñi ñu tërbiya bañ leen a nekk ngeen di béy wu ñuy tër ay yéen itam bu leen def ni ñi ñuy béy ngeen leen di leen di tërwaay soob leen nit ñi bañ dem ci yàlla bu kenn wax ko comme na ko yaa di yàlla bu kenn wax ko comme na yàlla loolu sëriñ buy naxaatee koy wax yaa di yàlla sëriñ buy naxaatee koy wax taalibe bi na dikk ne maa di yàlla sëriñ ba wax ko ko mi itam maa di yàlla di ngeen dimbale ji ñëleeb Cheikh Ahmad Tidiane Sarif radiyallahu taala anhu dafa wax ne isa aataytumuhum bi فخلوا بيني وبينهم لا زعلم الى العمل يو سرين بي لو خرين خرين مالا غنا خرين دا من ما دم بجي بي بي يالا با ما فك في القران ما تان لي لا اله الا الله لول الاخر ساهر باتن ما اندي لين كو ngend كو خامي يالا كون بل سي ديمبالي نيت كي بايكو رك لا تقصكم رنفتون في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ba leen yërëm ki soobu ba ko dimbale bàyyee leen ko wal yasat hansaboma taifatu minal muminina xaama rek gaañi saani laa yankihu ila saaniyatan aw musrikatan wa saaniyatu laa yankihuha ila saanin aw musrikun wa hurima salika alal muminina pay yàlla bi kenn du ci boolente njaalo doo mën a boolente yàlla ma yàlla di ko gëm ba pare di jëriñu ci yàlla déedéet ثاني لا ينكو إلى ثانية أو مشركة والثانية لا ينكوها إلى ثان أو مشرك وهرم مسالك على المؤمنين baleen كو غاني Ah, waa jant bi fenk na nag kon ah, alhamdulilah nag manaaba dal leen wax nga dëgg wax nga dëgg man mi Ibra Fall laa comme yow moi comme c'est toi nga dëgg kay doomi ngoy la ku doon laajte faali doomi ngoy a ngi ku doon laajte faali faali mu ca doomi ngoy a ngi doomi ngoy la werante nekkut ci werante nekkut ci werante nekkut ci werante nekkut ci werante nekkut ci benn sikki nekkut ci allahu akbar allahu akbar allahu akbar bi yàlla bi nanguwut jaxase li ci bokkut dangay mën gëm yàlla rek wala nga gëm lu duhut yàlla boo gëmee yàlla nag mu jeexal lépp jeexal ko ci yow bu fekkee ne da nga bëgg a yàlla leneen rek nag yàlla bayelal ak loola ana aghna shuraka'i ana aghna shuraka'i man asrakani ku ma bokkaaleeg dara ma baxee laal lag ma bokkaale toog di la xool te doo ci man dara kon nag nañ dellu ñun ñëpp te yàlla nañ góorgóorlu ci sun tarbiya nañ góorgóorlu wax naa wax naa ñaari maqaama yoo wax naa loo xam ne lii nii yaakaar naa ne man sax fàtte naa ko mooy gannaaw bu ñu àggee ci yàlla nañ góorgóorlu dëgg-dëgg daal taalibe bi daal fëgg dënam ne maa di yàlla loolu tàmbali la loolu tàmbali la de anam nag tàmbali bu baax la kum neex nga nekk ci dundu waaye nag a ah, ko ku góorgóorlu it da danga xam ne yàlla xam na yokk ndax sama góorgóom baax ga bu ma dafa mos a waxtaan wu gàtt wu am solo dafa ne ma Muxtaar ma ne ko faal njaga yaaram mu ne péye yàlla bi ak jaamam yi ñetti mbir dox seen diggante péye yàlla bi ci mbaaxam ak bërileem moom mu ngi dunde xaalim tëlëxti xaalim tëlëxti xaalim tëlëxti xaalim tëlëxti mu ne péye taala amul droit dundee dara lu dul hal min masidin hal min masidin hal mu ne bu ko defee yàlla jox la ba pare teg ci di kañu toppaane walla de naa masidun ba léegi maa ngeeg leneen lu ma la dolli ba léegi maa ngeeg leneen lu ma dolli nag moo tax nag taalibe bi gannaaw bu mu fëggee dënam bi ma de maa di yàlla war na soobu di dem ci biir yàlla ba xam yónnent bi mooy kan ak fan la soqeekoo ci yàlla loolu doo it mu continuer di dem ba xam Cheikh Tidiane mooy kan ak fan la soqeekoo ci yonent bi di dem ba xam baay mooy kan ak fan la soqeekoo ci Cheikh Tidiane di dem di dem di dem di dem di dem di dem di dem ba xam moo koy xamal boppam <laughs> loolu moom moo koy xamal boppam moo seet kan laay xam noonu man nangu naa taalibe bu xam yar waaye nanguwuma taalibe bu xam kii day taalibe bu xam kii day ak bu xam yar barhamu baun waraun alifun thumma ha